ci al muminu miraatu axiihi xam ngeen ne ab xadis bu wér la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na ki gëm yàlla seetu moroomam la boroom xam-xam yi xadis boobu dañuy wax ne ci kéemaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bokk warees na ca taxaw lu yàgg di ko jàngalente moom xadis boobu al muminu miraatu axiihi jullit bi moroomam mooy seetu lan moo tax yonente bi tànn tànn seetu waxul ne mooy garabam waxul mooy ab néegam waxul ne waaye moo di seetoom ñu ne ay melokaan la tax yu nekk ci seetu moo tax dafa am melokaan yu nekk ci seetu yoo xam ne moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tànn ko oustaz Alioune Sall jox na la ci benn waaye dinaa la ci dolli ne seetu bi ci boppam dafa maandu kon jullit dafa war a maandu dafa maandu mooy lan mooy buy àtte xàmmeewul ki ko moom ak ki ko moomul nga ñëw taxaw mu ne ah kii kat mooy ki ma jëndoon kon xaaral ma won ko image bu rafet bu jàmbur ñëwee mu won ko bu ñaaw déedéet na nga mel rek boo dikkee na nga mel rek la lay won donte yaa ko moom donte sax yaay borom usine bi ko liggéey boo dikkee taxaw fa xool boo dee màggat mu ñaaw wala nga yor melokaan boo xoolee noonu rek loola la lay won kon jullit bi melokaan woowu la war a yor buy laa biiranteeg mbokkum jullitam du ko jey ñu teg ci ñu ne seeta bi dafa bokk ci ay melokaanam as-safa mooy dafa sell ndax kat boo taxawoon ci ab seetu bëgg a gis sa bopp te fekk dafa lëndam ba dara du ca feeñ taq li ngay jëkk def mooy nettoyé ko ba mu set nga door a mën a gis sa bopp kon xolu jullit bi ci jëmmi boppam ngir mu mën a jëflanteeg mbokki jullitam faaw mu raxas ko ba mu set ba mel ne seetu boobu mooy tax jullit bi man cee gis boppam gisin woo xam ne gisin wu wér la kon bunt la boo xam ne bunt bu ubbiku la jàpp naa ne jaadu na mbokk yi topp ko te góorgóorlu ci bu baax te waxtaane ko suñ ko waxtaanee amal ay yëf yoo xam ne moo koy jëmmal ndax waxi kese rek du doy waaye amal yi koy jëmmal yoo xam ne danañ yëg ne ñii am na lu wér loo xam ne moo leen boole loolu mooy diine yàlla ji te diine yàlla ji bi ñu ko waxee waxtasimu bi xablillahi jamian mooy alquran ak sunna moo leen boole lépp lu jàpp ne nag mën nanoo boole lu mën a doon ba dajaloo wër ko moo xam ala lanu boole moo xam ay tur la moo xam lu mën a doon loola duñu boole mukk dafay dolli rek ak ko li feeg dellu si waatun ci njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tëloon ci alquran ak sunna وقت دفع قرط وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين